yéene cabinet dossier am googe nag fas yéene tëri ji fu mbaxana doone benn waaye nag am na ci ay magistrat yoo xamante ne ànduñu ci ñu amal mandat de dépôt euh, kii di Ousmane Sonko maanaam ñu yóbbu ko ndungu siin ba tax na dañoo am jiixi jaaxal lool euh, ci bile dossier Ousmane Sonko njiital Pastef mu ngi ci Walf euh, Quotidien les éco les échos ne njiital Pastef moomule Ousmane Sonko jot na amal ndaje mu yaatu ak ñam ca feggool ci parti Pastef rawatina ku jeeg politique bi ndaje ma ma nga doon amee ca yaayam sàkku na ci Ousmane Sonko euh, tànn na ay damboj ngir mu mun koo défendre mun ko taxaw ci commission ad hoc euh, bu assemblée nationale mi nar a ci plénière jëm ci euh, muri mbalaanu kiirlaayu Ousmane Sonko. las di ñu yëggee ñi nga xamante ne ñooy sonkis yi ay jegeñaale Ousmane Sonko ñu ngi leen di teg loxo ci jamono ji lakk ko waral mooy plainte boo xamante ne Mahmoud Saleh jébal na ko maanaam waa yoon jëm ci ñoo xamante ne dañ ko dànkaafu bëgg a lem ay fanam waaye nag la gën jafal mbir yi bokk na ci am na ñoo xamante ne eh, jot nañoo yónnee eh, bataaxal wala boog message Mahmoud Saleh ngir xamal ko ne yor nañu ay vidéo ak ay image yu njiitu réew mi image yu doy waar yoo xamante ne bu ñu deful ndànk mun nañ koo siiwal laas ne loolee tax na nguur gi mënatul nelaw ba yandoor ci jamono ji eh, fépp fu ñu gis ay jegeñaale Ousmane Sonko ñu teg leen loxo. Libération Libération ne ba léegi amagul liberté kii di nga xamante ne mooy Patricia Mariam Mariam àndul euh, di euh, soxna ci euh, Biram Souley Diop administrateur bu Pastef yéene cabinet soxna soose teg nañ ko loxo ba ba léegi la mu gis moo ne daal lañ koy tuumaal dara defu ko ca bokk na ci ne laalewul benn yoon ci benn parti politique keneen ku nu teg loxo di Fatoumata Traoré libération moo ñu ko yëggee Seydina Omar Ba Covid 19 bi wër na Sénégal amatul benn district goo xamante ne moo des ci réew mi bu amul corona virus. le quotidien le quotidien mu ngi ñuy rafetal euh, doxalin gu bees goo xamante ne amal nañ ko jëmale ko ci ay farando wala ay jegeñaale Ousmane Sonko opération ramassage lañ ko duppee Ousmane Sonko ay nitam ñu ngi leen di teg loxo loole nag don lu metti lool waa Pastef ak France dégage Fra France dégage jàpp ne nguur gi na muy doxalee ci way politique yi rawatina opposition bi moom la ñu jàpp ne euh, dëppul ak euh, yoon Direct News. la Ousmane Sonko euh, def euh, xel mënu ko nangu euh, defa sax jaaduwul bu ñu sukkandikoo ci Moustapha Diakhaté jiite woon fi groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar dikkaat na ca la xewoon ca salon de massage suite beauté moom Moustapha Diakhaté xam le ne amul benn médecin gu digal Ousmane Sonko mu dem maaso ji ci googu lépp salon de massage ba ko ñaareelu Ousmane Sonko lam la ko fa yóbbu woon du massage waaye nag dafa doon dem ci coobare boppam bokk na ci ne tàgguwul benn benn yoon bureau politique bu Pastef tàggul benn yoon booy politique ba tax na dossier bile kenn waru cee laxas politique Ousmane Sonko Euh, moo dem ci demu boppam Adji Sarr nag dañ ko neewal doole lool euh, ndax gis nañ ne ñàkk na waajur euh, dooleem demeetul noonu ba tax na ñu bugg ko sànq ci bile dossier. li quotidien li quotidien te ma wax leen ñetti njuumte yi nga xamante ne Sonko def na ko ana waral mu tànn masseuse maanaam ku jigéen koo xamante ne moo ko damp ca googule salon de massage moom Ousmane Sonko bàyyi fi kinésithérapeute yi wutali ab masseuse ba ko ñaareel Ousmane Sonko jël mbir yi bëgg ci laxas violence politique ba eh, ko ñetteel ana lu waral Ousmane Sonko woo ay nitam rawatina militant yi ngir ñu jàmmarloog eh, nguurug Macky Sall li quotidien ñett yi le bokk na ci li mun a suruxal Ousmane Sonko. 24 heures 24 heures ne lu doy waar moo xew ci assemblée nationale ci commission ad mañ fa doon taxawal bi wara a saytu mbirum Ousmane Sonko eh, Cheikh Bamba Dièye am ci jaaxle lool ak Fatou Ndiaye bi ñu ne moo bokk ci parti réew mi ñu faf ko nag mu doon député non inscrit ci assemblée nationale te loolee Fatou Ndiaye mile eh, warutoon a doon député non inscrit ndax ñëpp gis nañ ne Idrissa Seck doonatul opposant eh, te diggante bak Macky Sall eh, mburook soow la mu ngi ci 24 heures. Vox Populi Vox Populi ne ña ngay teg loxo ay jegeñaale Ousmane Sonko foofee ca dig analu sooke division des investigations criminelles di amal gëstu bu yaatu ci ay ñooñu Ousmane Sonko la ñuy fësal ci xibaar ak doxalin bokk na ci li ko waral. L'Observateur wàllu réseaux sociaux yeeg internet li ci xew ña cay dànkaaf waaye nit ngir faat seen bakkan saaga yeeg ah, tuumalante yu takkarnaase ya am yeneen cabinet ba tax nañu bari ci ñoom mun nañ leen a daaneel ci jamono ji yoon ah, mu leen a daan lu tolloog ñaari atu kaso jàpp juróomi atu kaso ah, tey ji la assemblée nationale fas yéene soobu ci plénière jëm ci nees mun a def ngir muri muri mbalaanu kiirlaayu Ousmane Sonko gannaaw bu ñu taxawalee commission ad hoc bi boo noppi critique critique moom Seydina Omar Ba lu toll ay junni ci ay vaccin dose yoo xamante ne dina yegg si tey ci ndakaaru ngir xeex coronavirus euh, critique moo ñu ko yëggee réew mi réew mi yéen kaay ne réewum Sénégal ak mbas mi Covid 19 jur na loraange ci école bi ndax euh, lu toll ci ñaari euh, ñaar fukki jàngalekat yoo xamante ne fàttu nañu ci mbas mi di coronavirus yéen kaay bi moo ñu ko yëggee. la tribune tribune ñaar fukki jàngalekat yoo xamante ne Covid 19 bi fàtt na leen doon jaaxal lool waa CUSEMS e ñoom jàngalekat yi ne bëgg nañu nguur gi sàmmoonteeg protocole sanitaire euh, gamu digoon euh, l'école yi ba ba léegi dàquñu sax ba gàntal njàng meek euh, njàngale mi fekk nguur gi saafarawul seen jafe-jafe bokk na ci fexe ba jëfee protocole d'accord gañu jotoon na tenk ci ay poñ yu bëri Abdoulaye Ndoye moo a fës njiital CUSEMS ne grève bu ñetti fan dañ ko amal ngir itamit xamal nguur gi ne jotut a sàmmoonteeg ay diggéem jëmoon ci fay yi seen mu ñeel examen baccalauréat ak BFEM gi ñu weesu mu ngi ci euh, Sud Quotidien Le Soleil Le Soleil ne ndaje mu yaatu sommet G5 Sahel lañ ko duppee ngir xeex euh, terrorisme Sénégal fas yéene ca dugal loxoom jàppale sax G5 Sahel lu toll ci benn milliard euh, bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi Macky Sall record Paris Saint-Germain nërmal na Barça noonu la ko yéen a bi xamle de def ko noggatu euh, daan koy tamit euh, ñeenti bal ci benn euh, Gana jot cee ràññeeku lool mu ngi ci record. stade stade ne Paris Saint-Germain moom mujjee na toroxal Barça ni ki démb Mbappé ak nitam jot nañoo sax daan Euh, Lionel Messi ak ñam ca euh, àndal euh, bokk na ci ñeenti bal ci benn Liverpool moom bu Sadio maane ña ngay séntu quart de finale ya suñu lamb suñu ne ñaari mbër yi la ñu ngi séntu ñu delloo leen wala bokk ñu yokkaatal leen liñ leen amel ci wàllu avance ndax ñu ngi koy xaar ba ba léegi la ak dëgër dëgg am ne avance yi la ñuy xaar ngir mun a soobu ci combat ñu ngi koy waajal ñeenti fan ci weeru avril bi ñu jëm tënk la ci xëtu yéenekaay yi incha allah dañ ci dikkaat na mu gën a yaatoo